da nga maa jaawale de du man <laughs> maître Wade tukki rek lañ def. Ah. joxum ah. non dama lay tooñ rek dama toi tu es une femme honnête. <laughs> merci beaucoup non ah. boo ko waxee nii ah. non non non dañu def nii rek pour pour pour xumbal rek. <laughs> xumbal rek yow yow mosu xam ak la xamal loolu. même saa yee bu ki ñëwoon fii boo ma lay jox paas doo nangu. yow sama waay nga. mais léegi ñu ñëwaat nag ci wax dëgg yàlla. Euh, sa ànd ak maître Wade. si kii bi nu mu tudd élection yi. waaw non balaa ñëw ñëw si élection yi ndax yaa tudd maître Wade. yow toog ak yow daf may neex. ñuy wax si maître Wade ndax da nga ko jege woon. Ah, ah. danga ko jege woon lool. am naa lu ma naq si àdduna. waaw sa sa sa sa tàkkali kooku moom. sa fait combien de temps exactement. depuis deux mil dix huit. 2018 ba 2024. six ans suma ko teguma ko bët koo xam ne tëdd rek. moo ñu doon tàkkali. waaw. yow waxoon nga ma sax ne ma bu la ne woon taalal sa waa kër nga taal sa waa kër. <laughs> waaw temps yooyu mais du may du temps yi de. <laughs> ah léegi doo taal sa waa kër. ak ah, ah, <laughs> li ma def. Mhm. Ah? mais cette séparation lu ko indi lu ma ko wéete kenn kenn kenn kenn kenn kenn kenn. seen mhm. séparation lu ma defal kenn mhm. defal ma ko si àdduna. waaw mais coowal koppar gi nag. man hmm? dama dégg ñu ne li leen jotale mooy da nga doon dox si digganteem ak président Macky. ñu jox la trois cent millions. après maa ngi sax maa ngi sax oto aw jotu ci bu may dem may dem faju ji. Hmm. su ma yi su ñaari oto yi. laa laa jaay dem faju ji. xam nga oto man si eh, bi foofu foofu hmm. si bâche bi. oto de. Hmm. oto laa jaay dem faju ji la la santé moo ne lu ne. et puis man sax dawal oto sax dawuma fen. waaw mais kon maître Wade lan la la mere. luñ ko wax lu leen boole Wade en 2019. dama ne woon nañu préparé beneen candidat. ndax Karim mu ko mu ñëw. Farba Senghor fekk si ma ne j'ai raison. ñu def seen comité directeur dañuy jàq ñu ñaar en disant que dañuy dañuy démoraliser. ah les militants. man de si roy eh, communiqué yi. Mhm. si rajo yi laa ko dëgg de man ba léegi kenn envoyé ma kii. xam ma envoyé kenn bokk mais toog trois quatre mois demuñu fenn. di daan xëy na Ablaye Wade dina ñëw dina sàb bu ñëw dina que nekk fi woon. comité de ko ah xëy deful dara. ma toog benn bés fii si kër gi Sabiñaay Sarr ñëw. taal ne Macky ne naa la ko jox. parce ne ma mbuub comme nekkatoo ci PDS. je n'ai pas de parti. te man libéral la doo ñoo jàppale ma. quand je partais chez chez chez, ne venais pas de du, PDS. dañ ma ndaxoon. buñ ma ndaxoon du ma fare mukk. et comme il m'a parlé ne man libéral la comme yow. ma ne ko nag du ma dugg sa parti j'ai un mouvement bu ma ak Farba mhm. suñu mouvement yow la ñuy jàppale donc de facto on faisait partie de Benno parce que tout ce qui soutenait lu mhm. euh, euh, euh, mu tudd Macky Sall lu mu tudd Macky Sall maa mhm. ñëpp di ko doon soutenir et surtout dans kon xanaa foofu lañ leen joxe seen liste boobu parce que dégg naa yéen yéen defoon da leen joxoon pour ngeen créer list ngir gën a bëril participant wu législative 2017. pour pour ngeen gën a yokk mbooloo mi ci législative 2017 ya la woon. ah yow 2019. Ah, la woon waaw waaw 2017. waaw mooy seen liste ba. du Macky moo ko créé woon pour la pour pour euh, coup d'essai. Mhm. nous avons eu te amuñu woon xaalis defuñu campagne. 10 000 voix Sénégal yëpp. dans Sénégal yëpp mais koo xam ne yaa ngi toog sa nit par téléphone. 10 hmm. 000. militant euh, euh, euh, candidat boo dem ñëw ne ko am naa 10 000 du la jël. 10 hmm. un coup de un coup ci député boo xam ne il faut cinq plus de cinquante mille voix. le problème mais liste bi kan moo ñu ne Macky Sall on a mais dañu ne woon list bi président Macky moo ko créé woon. créé ko xamul xamul kan moo leen joxoon caution. waaw ñoo caution d' accord. Hmm. mun naa d' accord. moo leen ko jox. moo leen mais c' est d' accord. Mm. moo ñu jox ko. caution ak frais de wàccaayu campagne man ma nekk koo xam ne nga moo tax nga neex ma. ah yow da maa neex de. nga ne yow da ma neex. waaw ma dig la yow doo langue de bois moo ñu jox caution. Mm. par ah, c'est Samuel Sall moo ñu ko jox. ak frais de wàccaayu campagne. darawul amuñu xaalis. <laughs> ñoo dañu kii rek daal di toog ku nekk teel sa téléphone di téléphone diw diw waa Belengara waa Tamba ah ah waa waa Dabo ah, waa Kousi waaw ay Seydou yooyu yëpp yooyu bari ay nit hmm? woo leen waaye d'accord fii la ñu toog ba élection yi. parce que mënu leen woon am frais pour déplacer woon am ñu xaalis. mais lu ma ne woon c'est un coup de mm-hmm. dix mille yoo demal seen di am dix mille yow. trois mille ah, sax du ma <laughs> du ma am sax trois mille benn beer. ah dina fees de Sénégal fii tànn beer. dix mille personnes <laughs> doo am. dix mille personnes. da ko am. mais léegi. léegi PDS. Ah. ak Karim Wade. Ah. yow loo jot a xam ci li waral Karim wàdd mënul ñibbi si Sénégal. man du ñëw man yaakaar naa ne du ñëw. lan moo tax. man yaakaar ni du ñëw. lu tax. je crois que xaw xaw ma de. Mm-hmm. mais yaakaar naa ne c'est parce qu'il doit au la mm. l'amende de cent trente francs. Mm. gars yi di ñu ko de. Mm. waaw ah. day bañ mu ñëw foog ñu régler ko d'abord day bañ yu ñëw ñu def ko contrainte par corps mm. et deuxièmement Karim lu muy wut si Karim lu mu fa am foofu mopp lu mu fekk fii. Ah, kon kay am na lu mu fayee lu muy nekk foofu. Mm. moo gën président sax. kon kay mun na fay 138 Karim kan qui se déplace au Qatar ay motards ñoo koy dal. Mm. moom moo yore le volet Afrique financement Afrique. Oh. centaine de milliards. Euh, il y a pas très euh, une, une semaine dégg naa ne Tshisekedi nommé na ko conseiller. Mm-hmm. mooy kii lu mu wut si fii mais seulement aussi euh, dafa war a faire beau euh, beau jeu. Mm-hmm. wax la la vérité les gens les gens. franc jeu maanaam waaw franc jeu dana wax. moo gën day toog day toog day toog de maa ngi ñëw maa ngi ñëw maa ngi ñëw ba élection parce que bu doon ñëw day ñëw léegi parce que y parce que foog mu dugg si dëkk bi ah recoller les for morceaux parce que les militants sont sont éparpillés il faut un travail def d'abord tu crois que dans deux mois avec élection yi que campagne bi mun na euh, euh, euh, dem dem dem dem kii nu mu tudd pour ñëw Sénégal ah. mu ñëw Sénégal foogoo ko. man gëmu mu ñëw Sénégal. protocole bi ñu ciy wax nag am na protocole bi muy génn. jeune ah, ah. koo xam ne guddi dañ la ñoo defar sa passeport sa cellule. Mm. guddi gi benn avion jógee fa ñoo jël si la nga dem. Mm. ah mu waxtaan amul amu fa. ah bon mm. parce que noonu la. le procureur du Qatar est